Dulit bu gor ak bu jigen wer waa ngi ñëw jëm si ci yeen nañ farlu gaaw jublu ci yeen laq nga neeli ramadan lay farata nga matale la cay sunna nga ràññale lo ci xamul bul jëllale leerlul ci wer wi say kaddu yit rafetalal sa jaamu gi na nga matal saw nang koy wal ci barke weeru Ramadan. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen baal ak itam di leen baal di ñaan suñu borom boole ñu jéggal di jiital nuyoo ak bi Cheikh Mahamadou ñu mën toqoo di ñaan suñu borom defal ko gudd fan bi ànd ak wér gërëm ak mboolem njaboot Cheikhul Khadim bi biir réew mi di dikki gën ci naafila guddi ñetteel gi moo xam ne ku ci julli juróom benn rakka bu ci ne fatiha benn yoon inna anzalnaahu ñeenti yoon suratul kaafiruun muy xul yaa ayyuhal kaafiruun yoon nee na ku ko def daal dana mel ne ku goreel junniy jaam ak ko joxe ndogu junni ñu woor ak ko wodd junni ñu rafle ñoo xam ne amul juñ sol nga wutal leen ne séer juñ sol léeg-léeg junni ñu xiif des na ko bindal itam tuyaab ju toll ne li moom ñanaaw yi ci àdduna yëpp te des na ko defal li ñuy defal jaami yàlla yi gën a baax ak ñi dee ci xare te deesu ko fitnaal ci bàmmeelam deesu ko ci mbugal itam kon loolu mooy naafila gi incha allah bu ko defee mbokk yi bàyyi ko xel bu baax a baax a baax a baax dinaa suñu borom daje na ci ngërëm ak tawfeexam bi barik alxuraan karim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu sa jaamu gi na nga matal saw yaramit nanga ko yiwal ci barke weeru ramadan